dal leen jàmm mbokk yi ci la première chaîne de télé urbaine du Sénégal la Sen TV dal leen jàmm ci waxtaane ko nuyu nañ leen namoon nañu leen kilifa diine aada cosaan képp ku waay nekk fépp fu nekk ci réewum Sénégal ñu lay jàpp loxo di la nuyu nuyu nañ ñëpp di sargal ñëpp di leen nuyu ci altine gi di ñaan yàlla suñu borom def jàmm ci réewum Sénégal defalee ko askan wii di ñaan yàlla it fépp foo xam ne nekk na fa jamono ji nekk ak naqar yàlla na ko yàlla tàbbil géej yaay maa ngi lay nuyu. mantu maa ngi lay fay di am mbégte ak bànneex di feggoo ak yow ci sa émission bu mag bi di ñaan yàlla yokk jàmm doolu sutura di Sénégal di ñaanal képp koo xam nag teewoon nga ci tiis bi tegoon suñu kaw mm-hmm. moo xam ci turu waa kër Bouna Albouri ci turu El Hadj euh, euh, Doudou Diané ci turu Ablaye Godiane Diané macha allah ci famille Fadiagne Makati famille Yaare ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla képp ku fa teew. wala nga compatir wala nga ànd ak ñun ci loolu ñun yàlla fayal ñu la di ñaan yàlla ba tey suñu yaay ajatu Marème Fall um Ndiaye bu ne yal na yàlla yeesa yërmandem ci kawam ci barke yonent bi mant amiin Ndiaga Mantou maa ngi lay ziar bu baax a baax am mbégte gisanteeg yow ci plateau bi macha allah waaw ñoo la raw ñoo la raw mhm. mais nag ni nga xëy se macha allah Ah, sañse bi sama chéri de ma defal nii. ma chéri su koy nandooy depuis Paris la France. macha allah nii mu la defal la dëkkee man. nii daal la dëkkee man daal lu mu lu la ko defal ah Adja Ndak. bu njëkk yem meloon ah, ah, def sa jamono càmmiñ sa alal lay njëkk bëgg na nga wér. soo ko jàppalee jàppalee nga sa càmmiñ soo ko sa sak la ndax ku li mu sol sa xel dem ci borom këram te njëkk jigéen nag mhm. jabaram alalam la yal na nu yàlla mu delloo suñu xel ak suñu sa mooy <laughs> xëyul jëkkër ji di xëy. <laughs> mooy ay man dafa am jàmm macha allah dafa am jàmm te ah, dafa am jàmm te tal ko. macha allah macha allah jërëjëf Mantulaay na jàmm yàgg di la ziar bu baax a baax di ziar Adja Ndak di la ko jox wàccuwaayam borom Tiwaawan waaye euh, tamit euh, di nuyu euh, Nuux ca Colobane di nuyu tamit Thierry Diakhaté fàttewuma tamit du Dieye di nuyu bu baax a baax Mami Saw ca Nouakchott waa Nouakchott dañuy seetaan bu baax a baax bàyyi xel bu baax a baax a baax mm-hmm. waaye tamit di nuyu Sénégal mm-hmm. ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp su koy ndoy comme ni ma ko waxee maa ngi lay nuyu di la ziar depuis Paris la France yaayu Mohamed yaayu Papi nowel mi ngi noonu Papi naa sama xarit bandi boobu maa ngi koy nuyu bu baax a baax chéri monsieur Diouf Ibou Diouf ñaareel bu féroce bi maa ngi lay nuyu neex a fekk Sainte Geneviève ndax demee Paris wax dëgg yàlla benn teraanga desul yow ak Mbayta Ndoye bàyyiwu leen dara ci di ma teral kon nag yàlla na sa jàmm yàgg xéewal gi yokk ak sutura gi lu rafet rek nga ne man ci man la jekk kon Ndoye Mali Maram dundal 111 ans sans ordonnance ñaareel bu féroce bi euh, teeru ma Sainte Geneviève rek wala ma teeru la Sénégal léegi léegi ndax namm naa la namm naa non si foofu noonu euh, di nuyu ñëpp nag di wax ni it euh, tiis yi bari woon na lool yaay surtout man nag wax dëgg yàlla Cambérène bari na woon na ay tiis ay xale rek ay moins de 30 ans. Hmm. ñu génn àdduna muy lu metti dama ci njëkkee nag sama xarit sama rakk Aïcha euh, di ko jaale jëkkëram Baye Sow euh, di jaale njabootam gi yëpp di jaale surtout sama xarit ba Galas euh, di ko jaale ñëpp Aïcha yàlla na ko yàlla xaare àjjana firndaw si sama beneen mag bu baax moom it buri daal di génn àdduna buri Ndiaye wax dëgg yàlla bañ ma yëgalee da jëm tiisoon na ndax presque 12 ans gisuma ko keroog may doxee dajeeg moom ci mbedd bi ci guddi bi ñu tàgge ma ko mu nekk lu ma lu dëgg yàlla euh, donc ma koy jaale ñoom maam ndugu wax dëgg yàlla ak njaboot gi yépp euh, ñu ne déete waaye ngaala moom it maa ngi koy jaale ngaala Sarr bu baax a baax di ko jaale sama chéri mami Sarr ak waa Cambérène yépp ñu teg la nag ay tiis yu métti Cambérène fan yépp waaye nag comme ni ñuy waxee rek bu yàlla soxlaa moom jaam ñàkk dañuy dañuy te ñu xam ne nag àdduna bi jeex na dañu rafetal dañu defaraat toogaay yi mm-hmm. defaraat toogaay yi bu baax a baax a baax xoolaat wax ji muy rafet jëf yi nay rafet suñu diggante nit yi nañ koy rafetal te xam ne àdduna bi dafa jeex képp koo xam ne da nga mer woon ak yaay su ma sañoon da nga dañ ko baal ma àq ngeen nekk ci jàmm parce que àdduna bi kat à ce rythme mm-hmm. Mm-hmm. man de tiit naa man de képp koo xam ne jàppal nga ma mm-hmm. baal naa la ko man na jàppalatuma kenn dara baal naa ñëpp ak ñëpp jégal te xam ne fii ma toll sama àdduna man jàpp naa ne euh, àdduna bi li ci des bëreetul day mantu rafetal daal mantu nit boo tongoog moom boo tongoog moom Adja Ndaak tongoog ba mu faatu ma est-ce que xam nga ni war nga ko wóoru sa jaale ji waaw boo dee nit hmm? boo dee nit tongoog moom tuddoo ko ba mu faatu wallaay war nga ko wër sa jaari billaahi man de maa ngi def ni mant rek di profité di baal ñëpp ak man de baal naa ñëpp baal naa ñëpp baal naa ñëpp mant boo xamoon sama yaay jigéen àddina Marème Fall Oumou Ndiaye bu na nga xam ni baax am na solo bi mu génnee àddina lañ ko xam démb rek la sama rakk ji mbéyta naan man daal xam naa ni lii sama deewu yaay gii dama ci jële beneen leçon jàngat ci jigéen ju baax ju yaatu ju secours famille ju tal bokki jëkkëram joo xam ne àddunaam yëpp njabootaan la ak i bokkam sàmbantamay ma ca daga na yàlla suuf ayof ci kaw di ñaanal maa eef ak ñoom daa ak anta jógee Paris ñëw ba fii ngir seen dëj bi ak seen taxawaay yal yàlla fay ñëpp naa si ñoom lii ka macha allah ku lim juum ajotikki ne ci ñu baax ñëpp Adja Margo promotionnaire yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla kenn ku ne yàlla na yàlla fay sa taxawaay ci barke yeneen di nuyu ñëpp du souhaiter sama benn xarit joyeux anniversaire Aïda Aïda bu tonton Ongué Diagne euh, chéri tonton Medoune sama umpage joyeux anniversaire ñoom maam Maguette Thiam maa ngi leen nuyu tantarama maa ngi leen nuyu sama yaay ju baax jooju dëkkee ci dul dul defal ma lu baax wala ak ma ko waxal ak di ma ko xelal euh, sama beneen yaay ju baax nag madame Thiam yaayu Pauline Thiam maa ngi leen nuyu bu baax a baax madame Tall mama euh, maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax yàlla na sa dund yàgg yàlla yokk sa xii wala sa teraanga yow xam nga man xam naa sama yaay jooju Thiam Babel Demba Thiam ku baax nga ci man maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax a baax madame Tall sama yaay ji maa ngi nag ak suñu yaay ñëpp duñuy seetaan parce que bëri na yaay yoo xam ne duñ ko fesal euh, daanaka mais dañuy mm. seetaan duñu suivre yaay yu yàgg sonn su ñun kon ñoom ñëpp duñu profité ci occasion bi di leen nuyu ma euh, sama yaay Dior Diagne maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax mais tam na fi yaay nga maa ngi lay nuyu bu baax baax a baax it maa ngi lay nuyu wax dëgg yàlla directrice bu agence nationale bu case des tout petits euh, petite enfance yëpp nga nekk ci di def sawaar ci mbay ma ñu tuddee ko nag làmb ju réew ñun ñëpp invité nañu le 21 mars. incha allah foofu noonu ca ca jareer. waaw nga xam ne moo fay meer yaay ñun ñëpp dañuy dem. ay cële ca làmb ji incha allah maam si ñun ñëpp dañuy dem. dañuy dem rek dañuy dem jaareel incha allah. waaw waaw koy nuyu bu baax a baax maa ngi Thérèse Faye maa Mohamed ah. sama yaay Aïda Amar maa ngi koy nuyu dama am ay yaay yu baax man laay jiitu ñu topp ci moom dama am ay yaay yu baax ci réew mi waaw nit bu baaxee sama yaay Abi Diallo tante la ci Marème Faye Sall sama yaay ju baax te maa ngi leen di profité di nuyu première dame Adja Marème Faye Sall sama yaay jooju noonu mm-hmm. nuyu naa ñëpp maam si dañu dem xool élément bi ñu dikkaat léegi ci plateau bi ménage di ko dénk sama xaalis ak sama mu ne ma daf may jëndal terrain léegi ñuy may ma liggéey si moom ba wàcce koor la nii daal di dem liggéey feneen eh, rek yow yaa ko proposé yow yaa ko proposé pour mu jënd a terrain wala moo la ko proposé. déedéet comme que man sama loxo jotu sama ginnaaw te maa ngi fi àbb nii sa mu fee ma dëkk nii dama fi àbba. Mhm. léegi man maa xalaat loolu daal. comme que liggéey ma liggéey métti na te mhm. doole bi day jeex. ma ne kan naa koy dénk xaalis daal bu bu matee mu jëndal ma terrain. Mhm. waaw léegi may def noonu di ko dénk sama xaalis sama lépp su ma xëyee liggéey bu yeddee bu ma fayee lii ma jox ko lii ma dundee ma samay njaboot. ma xëy xëy rek mu ne ma dañ koo sàcc pour man damay tooñ sax mais bi ma duggee dama ñëw pour man si télé bi lañu yóbbu ma dem xool télé bi nekk su ma nekk yow de sa moo yow kenn sàcc la man ngay nax doon noonu mu ne moom man ñuy jël sama 700000 xaalis ak sama 3 millions or. ma ne ko kon am na sa kër gii 3 millions or am na fi ak 700000 daal di bàyyi mu jàll man daal ma xëy liggéey liggéeyal kër yi ba wàcce demaat feneen dem liggéey rek mu oo ma téléphone ne ma bu ngo bu bu ngoonee boo liggéey ba wàcce nga jaar police waa police dañ lay oo ma dem su ma beneen sama dëkkandoo ma ne ma ah yow di jëloo dañ lay def enquête rek dañuy enquête xool ma daal di ñëw rek policier bi daal di ne ma demal si giri bi ma ne ko di nangu samay portable ma ne ko waa léegi comme que yaa si giri bi xaar ma oo oo sama yaay mu bañ ne duñ ma jox portable samay portable léegi sama ex magu jëkkër boobu romb duggoon foofu daa am lu muy lijjanti rek gestu yem si kër bi rek wax ma waaye loo def si ma nekk ko ah man dañ ma jiñ sàcc mu ne sii kii du jullit wax a wax wax léegi mu daal di sama patron yi may liggéey xam nañ ne man liggéey rek laa mu dem si ñoom ne leen man waaw gii ñu mëkk patati patata damaa bëggoon ñu bàyyi audience bi moom mu ñëw si njabootam sama patron yi demal ñu utal nañ ko avocat loola yoon may nga jël lu ko yoon may mu jël maram yow def nga li ngay def ba pare kañ bul amati benn bu fi ñëw sa teg sa tànk di di ñu wax demal sa kër nga uti sa avocat. mais utal nañ ok bi tribunal àttee lu mu wax. àttee mën la jox dëgg. Oh, comme daa daan sa euh, pot ne goral yaa bu mu tëggal ba muy nekk euh, or. waaw léegi léegi léegi valeur euh, valeur valeur terrain bi nga ko jëndaloon ñaata la toll. valeur bi ay huit cent et quelques mille ak xaalis bi nga ko doon dénk. Ah, xaalis bi nga ko dénk ñaata la toll. presque million bi li ko manqué sax bariwul. man du xam nga du ma jàpp damay ñëw rek jox ko. ok nekkite yow moom moom it xaw ma nu mu ko doon def. waaw léegi ndax mi ñu leen àttee ba pare ba nga xam ne tribunal jox na la dëgg ndax fay na la sa xaalis. fay déggul ma la fay bi bi ñu ñëwee tribunal man maa fa soulever loolu sax loolu yokkute sa sama der set loolu moo ma gën a setal. Mhm. daf ko nëbb waxul dara man maa ne sama avocat yi man dénk naa ko sama xaalis ak sama njëgu. su kër pour mu jëndal ma kër sama avocat bi nag bi ñuy àtte mu xaale su loolu léegi bi ñu paree ñu ne ka andil xaalisu jàmbur bi ak këyitu këram indiwul dara dara indiw ko dara dara dara léegi bu ñu demee. Mhm. ah yow da ngaa yaakaar daal bañoon laa fay moo tax mu jiñ la ab sàcc. yow nit ki ñëw wax rek. ñu nga jàpp ka rek defee rek kenn dégluwuma. d'accord ah kenn loolu moo ma yokkam nit ak moom. saa yu ma ko gisee tonton Ndiaga maa ngi koy bëgg a butti parce que lii ma def daf ma métti. su ma tëddee léegi damay yeew ba xaaju guddi sa toog di ko jooy. parce que métti na ma lool lool lool amul fenn fu ma ko jooyee. mu ngoog léeg-léeg dañuy wax ni nag euh, tooñ dafay am euh, firnde gaa ngi nii. Mhm. Euh, balaa may sori nag damay souhaité maam Sidi Diop suñu réalisateur bu ñaawul bi ci suuf. yaayam Awa Mbaye joyeux anniversaire ak seexam Adama Mbaye wax ni nag sa doom nag wax dëgg yàlla jàmbaar na ci waar bi ma koy tooñ Sidi Diop waykat dama ko yeb nag nee na ma ñëwati nga stress bi commencé ti Sidi Diop maman Awa Mbaye ak maman Adama Mbaye nañu dund 111 ans ñoom te lu yàgg yàgg yàgg wéy duñu tett ci njaboot gi professeur Serigne Samba Ndiaye jugul ci duñu suivre wax dëgg mhm. yàlla ba ma tëddee it boobu ba tey mhm. euh, ay appel jugul ci man ak ay texto maa ngi lay nuyu bu baax baax professeur sant yàlla maa ngi mhm. nii ñëwaat naa ci jàmm ak salaam euh, maa ngi lay nuyu wax dëgg yàlla yaa ngi ñu topp duñu ñu suivre euh, thème bu ñu def tamit mu daal di ci indi contribution professeur maa ngi lay nuyu di nuyu patients yi nga nekkal yëpp dama doon wax ne tooñ a ngi nii ñu firndeel ko firnde bu gën a leer mi ngi nii ndaxte man mënuma gëm nga nekk ci kër di liggéey Euh, moom liggéeyul benn kër boobu liggéey kër yu bëri nee na ci waxam ca lay liggéey day fóot fii di ménage fii di taqale mhm. su taqalee bokk ay tontinam mhm. tontine bu mu teggi dem dénk ko soxna si ba ut ci terrain ak leneen lu des ci koppar ga mhm. soxna si xëy xëy suba tongal ko ne ko yaa jël sama ay or ñu tëj ko tëjaale jëkkër ja man jëkkër ja mooy sans problème ñu ci <laughs> moom la moo jaaxal jërëjëf euh, Mantoulaye euh, damay wax ni mënoon nañoo tëj xale bu jigéen bi rek bàyyi jëkkër ji waaw ndax jëkkër ji moom xëyul dem liggéey ji euh, ci wàllu min min doole muy mindaan Euh, jànkuwuñul kon ki doon jànku ba ñu jiiñ ko sàcc bu enquête euh, waree daanu xam naa ni jëkkër ji lañ ko nii ab complice lañ ko war a arrêté normalement euh, mu doon koo xam ne daal jaay doole xam nga façon bi jànk yi léegi di liggéeyee moom mooy dañuy am ñetti kër nga xam ni mais femme bi fay na ko xaalisam waaw fay na ko fay na ko parce que bi ñu àttee bi ñu demee tribunal mantu bi ñu demee tribunal ba àttekat bi àtte xam ni enquête bi kat ñoom waa tribunal jàpp nañu ni kii amul valeur u 3 millions ak 700000 am ah, yàlla xam nga man mii su ma taxawee tey dañu naa sàcc 3 millions or voilà ñëpp saan xam nañ ne man aw ma merci beaucoup xam nga or moom or du fenn 100000 fenn or fenn ah, surtout si jigéen yàkkamti naa ba xew am ba mu tax ba mu tax ko ah waaw ah, surtout ma valeur 3 millions or or du fenn ñaareel bi tamit moom mooy euh, bi ñu àttee ba xam ni euh, ndaw si jëlul dara euh, jëkkër yi tamit yoonam nekku ci dañ leen a bàyyi waaye dañoo topp ki nga xam ni moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy moom mooy ndaw si ko jiiñ am sàcc mu di commencé fay nee na nam ko fayee sax xaalis ba dajalewul ndax dafa mujj ay vingt cinq mille ak vingt mille la ko fayee xaalis ba mujj dajale la mu doon dajalee ak tax ko muy taxoon muy bokk ay tontine mujj te jaar fenn ba cinquante mille ya sa des sax pour mu fay ko problème la da koo mujj da koo mujj bàyyi noonu mantulaay ah jaaxal léegi xaalis ba seey na noonu. bu ñëwee da koy dugal am daam foo koy dugal. Ah, kon la taxoon ngay liggéey xam nga dafa am ay borom yu jom euh, xaalis la ko mujj joxe da ko jëndalu ko jëndalu ko jëndalu ah, ko jëndalu ko mujj koo jëndal mujj koo jëndal te te te histoire la boo xam ne Mantoulaye gis nga feem bii moo ndaw si def feem yu ko raw ngi Mauritanie moo ngi Maroc moo ngi ci yenn dëkk naar yi mhm. bëri na ay sénégalais yu ñuy jot yoo xam ne dañuy dañuy dañuy jànku ci ci yenn dëkk yi ci ci euh, sous région bi mhm. ci yenn dëkk naar yi mais dañ leen ni dañu leen di liggéeyloo liggéeyloo parce que par tabaski la ñuy ñëw. Mm. ñoom it xaalis ba dañ koy dénk seen njaatige bañ nekkal parce que euh, dëkk naar yu bari ci kër gi ngay liggéeyee fa ngay dëkk. Sénégalais tamit loolu da koy arranger parce que day tax du. luye ji ak ak wal merci léegi ci kër gi lay dëkk. léegi xaalis ba ginnaaw moom du soxla dara lépp ci kër gi la koy defee da koy jii da koy dénk. Euh, njaatige bu tabaski jotee bu ñu dee waaju ñibbisi nag ci la ñuy calculer li ñu am. jox ko jox leen ko ñoom it ñu ñibbisi mais da ngay gis ñu liggéeyee ci ay naar ba ba ba ba li may li may dégg ñi ñu bari miin nañu li ma wax ba année ba année bi jeex dañu leen fay jiiñ sàcc comme ni ñu ko jiiñee ndaw si yóbbu leen police dëkk boo dëkkul nag amoo fa nijaay ak bàjjen buñ la fa jiiñee am sàcc ba nga xam ne yow sa yoonu kaso waxuma la sa yoonu police parce que yoon police am na mais sa yoonu kaso ngi nii la ngay def moom mooy boo moytuwul da ngay daan ni même boo jëlul da ngay daan la la dese mooy calculer li ma jiiñ ñaata la nga retiré ko ci xaalis bi ñu bari noonu la ñuy mujj def tabaski boobu boo moytuwul duñ ñëw dañuy daal di demaat feneen commencé faa commencé faat faa liggéey nga gis ni tamit bëri na ay jànq yoo xam ne wallaahi ja ci village yi la ñuy ci dëkk yi la ñuy jugee ci ndakaaru la ñuy jugee patron yi di leen def lu patron yi di leen def lu doy waar te la ci gën a oyof mantulaay moo ñu jiiñ leen ab sàcc billaay bëri na ñoo xam ne ci kër ga lañ leen waaw waaw bëri na njaatigee bee leen violé bëri na doomu njaatige bi moo leen violé bëri na euh, euh, vigile baa leen violé wala sëfoor ba moo leen violé ñaareelu boo leen menacé leen parce que njaatige bi bu la ëmbalee boo moytul dalay jox xaalis menacé la ni la yàqal biir bi bëri na ñu yàq seen biir ci ay jànk yoo xam ne seen i njaatige ñoo leen la ñu leen di def ca kër la ci gën a oyof mantulaay mooy jiiñ leen sàcc waaye la ñuy daj ci wàllum lekk lañuy ñuy daj ci wàllum euh, tëdd waaye la ñuy daj ci parfois da nga yoo xam ne am nañu osé ni ñu pour di dóor sax seen i jànk def leen ay gone wallaay wallaay loo xam ne lu doy waar rek doguma la njëga am na benn xale bu góor boo xam ne dafa ma interpellé ci buntu bi mhm. mi ngi war a am à peu ay vingt et quelque daal vingt yi daal teg na mhm. euh, mu ne ma sama yaay mi ngi jóge woon ci sud bi Casamance dafa ñëwoon Dakar fii di fi liggéey côté Guédiawaye bi mu ñëwee di liggéey wax na ma sax turu papa ji kilifa la mhm. ba muy liggéey ci kër ga euh, euh, kilifa gi wan na ko lor ba pare ne ko man bugguma sama jabar yëg ko. waaw maa donc jëlal xale bi li ci war naa ko def. Mhm. xale bi euh, yaay ji nag comme moom dafa yëg boppam xam ne wax dëgg yàlla lii mu ko nar a def loo maanaam nëbbatul daal. Mhm, mhm, mu dem yóbbu doomam Casamance yar fa doom ba doom ji màgg. mu expliqué doom ji nag histoire doom dafa ñëwaat fan ko expliqué ni papa ji fa la dëkk fekk papa ji mu toxu mu ñëw di wër papam fu mu toll. Oh. booba ngi wër papam pour wax la ne la. lu du feeñ mukk waaw kay ba pare mu nekk locataire sax ci benn mm-hmm. koñ boo tuxoo ku lay xam oh, ku lay xam kenn du la xamati mu nekk na ay problème yu ndaw yoo xam ne jànk yaay bari na loo xam koy dund ci biir kër gi maam Sidi bu ñu mënee affiché téléphone bi euh, ngeen dugg rek ci 88 628 89 90 ngeen bës 2 wala 88 628 28 28 ngeen bës 2 bu ko defee daa ngeen mën a bokk ci émission bi mantu li ma jaaxal mooy li ma daan dégg ñu naan mi na daan doole bi moo ci niñ ko daan waxee. Mhm. ak ñi ko daan wax. ñu koy def sax. waaye àddina bi léegi dafa dafa nekk à l'envers mhm. ba nga xam ne yow mi nga xam ne yaa jël nit di ko liggéeyloo. mu lay dénk alalam. nga teg ko tuuma lu toll nii indil ko ci coow lu toll nii indil ko ci borom këram man daal dama yaakaar nañu fàtte ni sama boroom nekk na parce ku yaakaar ne ku xam ne yàlla am na bis dana ñëw ñu yeew la ba nga dëgër laxas la ba nga ni ngodd gas pax dugal na ca dem bàyyi la ak moom di nga sóor li ngay def sa diggante ak jaam yi ndax ay nit lañu. Mhm. te xam nga àddina bi moo war tukki mais gis nga min na daan doole moo ko yow a yem soo ko bàyyi sa kër dem wuti fi dem fa ngay liggéey yow foofa min daan doole nga fa suñ la defee ni ko def kon kenn du dem. Mhm. mais ci loolu lépp njaga ñu delloo siwaat rek ngor. Mhm. delloo siwaat gëm yàlla ak nekkin ak sa nawle nekk nit ku baax parce que lu lu waral lool lu baree bari. ñi lay li njaatige yi dañuy jàppee mi ne daan doole comme ñu dul ay objet comme koo xam ne da koy utiliser rek su paree nga sànni ko mhm. xamoo euh, condition bi muy tëdd intéressé wu la lekk bi am na ñoo xam dañuy lekk mu des ñu jox la mhm. ak lu mhm. mën a des duñ mën a am na ñoo xam ne ci àdduna du ngeen bokk sukk ñam déedéet bari na ci àdduna am na ñoo xam ne xalaatulu sax toog ci saal bi nga toog bokkul ci seen dund te nga baal ma ñooñu noonu jànk mm-hmm. ñi dañuy dugg seen intimité nekk ci seen nekki di defar seen lal yi di range di changer drap ak di raxas seen biir euh, toilette intérieure yi. waaw ah, mais xam nga loolu loolu gën a intime waaw moo gën a intime mais xam nga ba tey ba tey mi ngi ci ñàkk def prise de conscience mhm. parce que am na koo xam ni am na foo xam ni ku la fa yebal na bëttu la mhm. ku la fa yebal na bëttu la parce que mhm. dafa sori mais xel moo xelu nit doomu aadama moo gàtt ki ngay yóbbu ci sa néeg mu lalal lal salal lal li la ya fa nekkoon yëpp defar sa douche raxasal la defar la ba mu jekk taayal la cuuraay tëjal la mais soo ñëwee war nga xam ne kooku moo la gën. Mhm. parce que nangul na la loo ko. waaw li nga ko war a jox ci ñaxam nag su dama daan dégg sam papa yàlla na yàlla yokk leeram taasu si barke muy wax ne ki lay liggéey loo war nga balaa ñaxam a fenn nga fay ko gis nga jaga bari na problème yu am yoo xam ni ñun ñoo ko teg suñu bopp ndax am na yu ñuy koo jànkuwanteel yoo xam ni xolu nit ñu tàng ñi mel na daan doole seen xol tàng yi service yi ñu leen def ci biir kër moral sànni ko kaddu wax ko loo xam ne day togg ba pare du ko lekk. Mhm. tiim sa njaboot di lekk mu dem toog ne bu pare nga jox ko ko. bari na mhm. ay feebar ak jàngoro yu dul mën a faj. wallaay wallaay ñi ma ñam lekk bàyyi ko ca la bokk. Mhm. te ña daan gore di min na daan doole ba nëgg ni ñu ngi gore. dañu ci yor exemple ñoo xam da nga leen yor bi ñu amee ay 11 ans 13 ans. nga di leen yar di leen ko ba léegi. ñu nekk ay jekk am ay jëkkër yu baax nekk ci seen kër mel ni yow wala ñu yàq la sax kër mm-hmm. am ay jànq te ba léegi rapport yi mi ngi mi ngi gën a fraternel di gën a rafet kon loolu mi ngi nekk ci ñaari gor yu ànd ni mu amee mi na daan doole buy ñëw ci kër jël fa lu mu moomul wala mu jël fa jëkkëru patron wala mu def fa yeneen yoo xam ne ci njabootu ki koy bàyyeek njabootam noonu la mel ci liggéey loo njaatige yi am na ci ñu sew ñoo xam ne duna la fay doo lekk doo tëdd fu baax am na ay mën a daan doole yoo xam ne ci ay perong la fanaan. am na ñoo xam fi ñu leen di tëdd bu ñu leen di. wallaay bu dee ni dina fi tëdd nga ne du dëgg. li ñuy lekk meew mi ci kër gi di mm-hmm. na boo xam ne ki ci kër gi di la sonal le fait que muy toog di lekk di naan ci la sutura bi di yokku mm-hmm. ci la man gi di yokku mm-hmm. ci la teranga bi di yokku kenn xamul ñu nga yor ci sa kër kan moo ci yor sa wërsëg xamuñu ndax kii bale xamuñu ndax doom bi nga jur xamuñu kenn la jox te gis nga njaga addina dafa gudd tànk nekk jar naa rafetal ndax dara yàggul dara yàggul te ku xamoon ki lay mujjee wala fu ngay mujje koo àndal nga defanteeg moom lu baax mhm. gis nga ki ma lay tàggee ni fan yi jànq bu ma sa jaar këram rek boo déggee ndee ne boo ñëwee daanu nga ñu sotti la ndox lu la sant ne la nga baal ma oh. baal ma may ma ndox baal ma defal ma lii su tabaski jotee day xotti barki Mouhamed may seeni yaay génne ay yéreem def ay dra ku ne sa mbuus ku ne mu jox la nga dem. abe jikko la. te kon am na loo xam ni. mbaax ba léegi fa mu nekkoon ñun daal nañ delloo suñu xel xam ne yàlla na kii wut kii bàyyi ndeyam ak baayam am ngoram ñëw di daan si doon. allo jël ki ci ligne bi allo allo. 88 628 89 90 ñu bës de allo allo. allo. yaay dem na ne. nañu gëm yàlla daal xam ni ñëpp a yem ca yàlla. jaam ñëpp a yem ca yàlla te kii daan doole boo ko xoolee xam ni nit la kom yow yenn saa yi sax nga ku la gën ku la gën di ko. Mhm. yenn saa yi jël koo xam ni moo la gën di ko dana gore du la laaj. du la sonal mel ni Xadi Mbay maa ngi koy nuyu di ñaanal yàlla wér a sentir ñoom maytaal macha allah ñoo xamee ne que da xam ne ñii yàlla moo le boole ak ñoom mais gënoo leen. gënoo leen kon loolu nañ ko bàyyi xel xam ne nit la kenn gënul kenn yàlla moo bind ñii man ñii tële ñooy daw di sàmm seen ngor ak seen diine ñoo di wut lu nu sutur nañ leen ci bàyyi xel xam ne ëllëg du du du du du kii mais man na bàyyi xel daf ci may yoo xam ne nag dañu dañu tayal ba mel ni man mhm. gàtt xel ba mel ni man euh, xa ñàkk xam àdduna ba mel ni man sama bopp laa koy jël ab jànk mu mel na mu war a mel di sol baawam dàqoo ko gënoo ko set gënoo ko tubaabe bari na fii ñoo xam ne ay étudiante lañ mais week yi dañuy am lu ñu def ci kër jàmbur yi mhm. wala grande vacances yi pour am lu ñu fayee seen études yi mhm. ñooñu noonu nga jël sa kër ñu nekk intellectuel ah. tubaabe eh, ñu jël ki ci ligne bi ñëwaat allo allo allo salaamaaleykum allo wala mu retour lañu allo allo 88 628 89 90 ngeen bës de allo allo. dafa mel ni problème mu jokkoo bi maam Sidi parce que ñun dégguñu lu ñuy wax euh, fii nii ci plateau bi déggu dégguñu lu ñuy wax euh, problème mu jokkoo la fi ma nekkoon mooy jànq yooyu dañuy mel nu ñu war a mel ab mantulaay toog fee. Euh, jël jànk ba rek lépp mu délégué ko ci kër ga da liggéey soo wàccee heure bi ngay wàcce dangay ngay sonn doo talu dul sangu ñëw nelaw jànk ba bu monsieur wàccee mooy tàngal añ bi jox ko mu añ mooy jël ndox bu njëkk ba sukk jox ko mu naan bu monsieur ñëwee moom mooy boo moytuwul sax bu ko raxasalu tànk mit daal yamuy liggéey jee moo koy fomp mm-hmm. euh, boo moytul mooy yëkkati vest ba ca kaw yaram ba teg ci kaw fauteuil ya taalal ko cuuraay toppatoo ko ba reer jot moom mooy taati reer mooy def reer yëpp yow da lay yeera ne la madame jugal reer nga reer soo paree ànd ak monsieur tëddi maanaam monsieur kanamu jànk ba lay gën a tàmmal boppam ak ay service jànk ba bu yàggee jànk ba da koy séduire ñaata nit ñaata jigéen nga fi gis fii nii ay jànk ñoo nangu seen jëkkër ñaata ay jànq ñoo jël seen jëkkër nga ne yow offense la wala daf ma toroxa wala daf ma fekk yow yaa def man gis naa jànk boo xam ne sëy na mi ngi dëkk Nations Unies mais ba tey jii ni moo teen borom këram mhm. jabar ja dafa mujj dem bàyyi sëy ba ah, ba koog moom bu ah, continuer di sëy sëyam mhm. am na ca njaboot ba jëkkër ja na mu tenj ko mais loolu yenn saa yi yenn saa yi góor ñoo xam ne ñoo weex bët nag moom ñu kenn mais daf ci am ñoo jigéen ñoo xam ne ñooy sàggan ba seen i jëkkër di lëkkaloo ak seen jànk ba leen di takk Mantoulaye parfois rek góor nom na ci jigéen ah ba regard bi nag regard rek nii nii góor nam na ci jigéen bu la regarder nii ba piis la te xale yi nag dañoo silwise bare na ci jànk yi solotuñu tiset tiset tisetu tanoor tisetu tanoor rek tisetu Abdou Diouf ñëw ñëw ak ak ak wax rek wala legos rek ñëw no hmm. ah, non yooyu bàyyi nañ ko de dañuy jiinu baa dañuy baaw baa bi nga xam ne mooy tukkal dañuy jippu ah? buñ la taajalee añ jox ko añ bi daggal ko fruit ñu dagg ñu dagg fruit bi ak façon bañ koy daggee taajal la ko andi seeni feem andi seeni feem hmm. defal la jus jus bi nga xam ne sa jabar defaru ko jànk bii moo ko defar lan nga deseel jànk bi kayal ma ko rek <laughs> kayal ma ko rek ndax lépp li mantulaay wax mooy euh, ñoo lay fóotal ñoo lay toggal ñoo lay tàngalal ñoo lay jox fruit lépp lépp lépp da ngay dem ba nga xam ne yow turu jànk bi ngay gën a miin sa turu jabar mhm. parfois dangay ngay bëgg a woo sa jabar ci kër gi da ngay jaawale sax woo jànk bi parce que léppi léppi jànk bi sa jabar yow sa lépp jànk bi la ko la ko dénk ñaareel ba loolu nag cofeel dafay am muy miinante muy njëkk avant mbëggeel ak doom yi di avant avant mbëggeel am na ñoo xam ne damay wax souvent ni bëri na jànk bu ñu dàq doom ji ci kër gi doon na jirim bari na ay jànk yu ñu dàq ci kër gi ma ñu dàqee jànk yi la doom yi doon jirim ndax doom yi xamuñu seen ndey jànk ba la ñu xam kon boo ko dàqee doom ji doon na doon na jirim gis nga problème moom mooy li ma gis ndakaaru mantu laay tàyyel da cee bokk ne ci ligne bi allo allo allo allo ñu continuer bu yaayam di def anniversaire moom yii rek def <laughs> Sidi dafa mel sa anniversaire yaay bi nag moo la jàpp defaral nit waaye gaa yaa ngi bëgg a dugg euh, dafa am réew mi euh, ndakaaru li ma fi gis taygal da cee bokk da ngay gis koo xam ne warta am njànk tur am naa jànk da cee da cee bokk waaw wujje gi surtout boo yu ndaw yi nga xam ni ay élèves yi maraneuse lañu xale yu ndaw yoo xam ni amuñu amuñu amuñu jëkkër war a fóot seen fóot da ngay dañuy dem daal di wutub janq janq ba di leen fóotal bu weer wi deewee ñu sànni ko benn vingt cinq mille wala vingt mille dafa bëri ñoo xam ne tiitari leen dugg ci jàng tiitari moo leen dugal ci jàng waaye la ñuy def seen doom war na koo mën a def am ñoo xam ne tulu am naa jàng sa jàng ba laa fa bàyyi am ñoo xam ne xale yu ndaw wallaay gis naa ay xale yu ndaw mantulaa yoo xam ne ay élève lañu ay xale yu ndaw yoo xam ne jëkkër amuñu ko dañuy daal di wut benn xale bu ndaw 14 ans yeeg quinze ans yi ñu leen di fóotal ñu leen di fay cest xolal dire xoolal tàyyeel googu ci kër yi xoolal tiitaru googu ci kër gi yow 50 000 bi ngay jox jàng xañ na ci yow te fan ngay mujjee ak jànk bi moo yoreel ko ay deux mois trois mois koo gis mu am jànk te wërta am jànk rek coow lay jolli jànk yi nag am ñu ñoo xam ni comme li nga wax dañoo am ci lu ñu jàpp trois mois la ñuy am dugg ci kër yi gën laa civilisé yow fuuf fuuf yow jabaru waaj gën laa mën a solu fuuf yow jar jarwaaj mën naa logi ay air er. fuuf xam xam milieu yu baax yi yow doo génn sa kër xam parfum yu baax yi yow boo ñëwee tëdd nga lépp lu baax ñoo la ko gën a xam nga bàyyi kook sa jëkkër boo ñàkkee sa jëkkër yàgg góor ñi gàttuñu xelle dañ leen a bàyyi dañ leen a luyee jabar boo leen luyee jabar luyee jabar moom mooy jël jël jël jël jël ab jànk lépp ñu loo koy defal mais bu yàggee ni jànk bay def lépp feem bi bi sa borom bi sa jabar war a def jànk bee la ëppi feem la ngay bala ngay gis jikkoom baax na la jikkoy jànk bee la gënal ñëpp la ngay dem di wuti keneen nag te gis jànk bi miin nga ko xamal na la lépp te xamal nga ko lépp jël ko fi nii bëri na jàng koy remplacer patron ñi. waaw te te du caagi moo tax rafetal rafetal am solo de. Mhm. billaay boo dee ñaawal di xaste di dóore ba benn bis nag sab jànk doon sa wujju nooy def. mais <laughs> njaga waxuma gën a dóor rek. ah acca njaga dañ koy dóor njaga. <laughs> waxuma dañ koy dóor ba toog ci kawam. yaay nga baal ma. baatu toogal waaw waaw wujj moom lu koy ñoo xamante ne ñoo la man. Ah. ñoo lay ëpp sut la. bi lay wax sax da ngay ak mesure. mais njaga xanaa xam la des fois nga tuddi ko tayal mais du tayal ñàkk xam la. Ah. ñàkk man waaw. bari na ci ñoo xam ne mënuñu de. waaw waaw bari na ci ñoo xam ne mënuñu bari na ci ñoo xam ne xamuñu mm-hmm. parce que gis nga xale bi ci kër gi nga koy liggéeyloo li mu fi fekk rek lay def su fekkee set wecc moom lay def. waaw su fekkee mën a togg su lay toggal da lay bàyyi xel. Mhm. parce que dafa naan kii may toggal ah waaye yow tam am na am na am na am na benn genre mel ni lu ragal wala lu rus ab jànq façon boo xamee ne que lam man mënoo ko. su meree dem ceeb bi tey du baax. mukk su meree suppe bi du baax. su meree reer bi du baax ndekki li du baax. Mm-hmm. ba tax na yow war na la fekk nga am sa base bi nga xam ne moom nga war a am bala ngay dem ci sa kër mooy nga mën liggéeyu jigéen. oui madame joo gis topp la di la kii neng nenge nga mel ni yaa kër gi am na jànq yoo xam ni nit ñuy tontoo seen ay patron moo lay wan ni ñii li ñu indaale ñoo ko moom ñoo leen daq dàqa togg dàqa leen dressé mm-hmm. ñi mewun laa mere day wax mu ne maa ngi ñëw dégg naa la maa ngi ñëw am ñoo xam nag seen naturel la ñu ñàkk sa gàtt ñoo dem ba am assise ñi may too leen daax mais yow tam parce que fanu lay jëlee nga mënta yóbbu sa bopp mukk ci àdduna fan lay jëlee mënoo faa yóbbu sa bopp su fekkee mënoo dara nag topp joo gis ak neexal joo gis ñàkk man dara la waaye su fekkente ne leer na ko ni bi mu ñëw da nga ko doon yebaleen ñu lu gëm di ko wax ni russi bi dog na wala nii laay togge ndawal wala nii laay togge soos kooku bu lay toggal wala muy wax ak yow dana la bàyyi mesure mm-hmm. parce que dana xam ne su nga nekk rek nga def ko waaye bu fekkee moom li fi moo ko man ah, moo la jàngal moo fi indi man a togg yaroo say doom jàngaloo leen togg ña ngay nelaw yariwee posé ay xef dem jàngi di ñëw yore ay kay takat kay ci bureau ba la yem ku la ci doom di la làkk ba takk la indi la ci appartement am mënoo togg sur le plat fala lay bàyyi di wut à côté bu koy defal waaw ah. li ko defal yu ah. baax bu ah. wàccee jaar fa defal baax bu jël la sa bopp mais mën nga bañ toog tu es fatigué da lay dóor góor ñi na benn xale nañ ko bàyyi xel waaw am nañu ay xayma de góor ñi oh, ñoom maam Sidi ñi fem yu sew sax xeet gi ma gis fi eh, Adja Ndak <laughs> maam Sidi góor ñi am nañu ay xayma billaay bu ñu meree ci kër gi rek dem ci xayma ya mm-hmm. xayma xayma waaw bari na góor ñoo xam ne bu ñu meree rek dem ci xayma ba gis nga eh, Mantulaay jànk yi duñu ay rëboo mm-hmm. ay nit li ñu ami xel di xalaat ëpp la xel foofu yow njaatige bi am na ñi ci muus nag ñi ci muus njaatige yi muus dañuy daal di jël jànk bi def ko xarit am na ñoo xam ne bu ñu amee problème sax ak seen jëkkër sax jànk bi la jànk bi la ñuy woo conseiller conseiller mu conseiller waxtaan ak ñoom am na ñoo xam ne seen sëriñ sax jànk bi la ñuy yebal parce que li leen jànk bi di xelal xarit xelalu leen ko mm. fi leen jànk bi di yóbbu ci conseil xarit xarit jànk bi sax ci kër gi ba pare jànk bi dafa dëkk ci kër gi. dafa dëkk ci kër gi ah? di xool non duñ ay rebo ay nit lañu. ay nit lañu waaye am na foo xam ne. yéen ah. baax na de dencal ko sa bopp. Ah. am na solo defal ko sa bopp am na salo boo xam ne bu jógee ci yow dem ci keneen te xamoo yan loxo lay tànn. Mm. waaw baax na. jar naa bàyyi xel bi am fu nu yegg. cumikaay yi ah. ah bu dul cumikaay yi sax say daal. yii dencal say am na gis nga gis nga gis nga yi nañ leen boole ci famille bi def leen njaboot nañ leen boole def leen doom nañ leen boole def leen xarit mais gis nga tey ji nii wallaahi nit mën nga koo dimbali tey suba mu dimbali la. dafa am ku may nettali euh, jànk bi ci kër gi nekk moo war a doon njëkkeem ëllëg benn bis lay waxtaan parce que moo jànk bi dañuy waxtaan ci waa ji moo tax surnom baaxul comme séeri euh, euh, am sa naan ko papaak sokolaak xeet yooyu la tuddee farwa ñu ciy waxtaan di ci waxtaan di ci waxtaan ba nga xam ni gaayen bi moo ngi Europe war a takk si ki nga xam ne mooy mooy mu paas ko téléphone ñoom ñaan ñu waxtaan mun ko may kii nga ma paas sama benn sœur benn voix la mun ko fu mu dëkk mu expliqué ko muy mun ko pourtant ci kër gi lay liggéey mun ko non waxoon na ma day liggéey imaginel ñaawal googu maanaam bu ñu ñaawantoon fekk na rafetal am na mm-hmm. mais bu ñaawoon moo war a doon sa njëkk bilaay boo ñibbee booy sëy su muy fayu dëgg la booy sëy si mu lay def jànk. wala sëy ba du booy sëy si mu lay def jànk. sëy ba du am tey nga fasu ne yaay ji kii buñ ko takk jikko bi la am sa sa kër ga nii ak nii ak naan. parce que kenn xamul fooy mujjee. imaginel kii nga xam ne tey jànkam mooy doon moo moo war a doon njëkkeem bu ñaawal amee amee woon bu rafet amul woon billaay ji jigéen ñi manee fayu booy ñibbi di sëy si. Ah. ngay doon sab jànk. mais yow yow yenn saa nga gis nga gis jànk boo xam ne mooy gën sax doom ji nga jur si yow wallaay yaay day laa biir ah. man gis naa koo xam da lay yërëm da lay gis naa koo xam buy dem màkka ajatu kinde abdu maa ngi koy nuyu day yóbbu jànqam koy jàppale euh, gis nga dafa am ay geste noble yoo xam ne il faut nit am jukko bu rafet pour mën mm-hmm. koo gis rek def ko ni sa bopp ba bu noppee mel ni nga xam wala ni nga mel nga am fo yem mais asgor soo indi ci sa bopp teral ko des fois nga gis jànq bu ñëw ci kër ñu raxas ko mëddale ko defal ko façon boo xam ni fu mu dem di fa seef parce que yar nañ ko. parce que loolu tam mën a yor jànk euh, Mantoulaye tey jii ne tey jii ne yow nga yor ab jànk yor ab jànk jikkoom rafet nga yor ab jànk mu silwiise nga yor ab jànk ba yéene ko jëkkër mën nga koo jël sa jëkkër sa say doom déedéet wala say doom sa jëkkër ni ko jëkkëru lan jëkkër euh, Ndiaga yow nag xam nga saraxas day foq na ko. bàyyi ko mën naa nekk sunu jëkkër sunu jëkkër tey nga ñëw bàyyi sunu jëkkër. oui man mën naa nekk nag aja xalaat sunu jëkkër man naa nekk. déedéet ñun sunu jëkkër rafet ba nga ko sa jëkkër mu jël. waaw waxal ñu ne ñun sunu jëkkër man day je crois xanaa ca maam ya. Mhm. mais bi ñu gimmee xàmmee ak léegi képp ku jëloon nit ngir ak bokk war a rafetal may ko sa jëkkër mu jëwu leen ci jàmm ah? xëy na démb nettali am na parce que seen dëkkuwaay moo rafet. seen jikkoo rafetoon. mais jamono bi nu toll. képp ku mës jël sa jëkkër. may ko sab xarit mbaa sa mbokk mbaa ko yaakaar jikkoo may ko ko mujjewu leen ci jàmm. dëgg la ndax ku jël dafa sew. yow yow yaay du foofu sax mais. du foofu sax njaga góor mais gis nga man des na sax waaye ay benn gisoon benn xale bu jigéen yéen a ko njaga may ko xale bu jigéen bu xam duggee ci sëy ba am assise man lay njëkk a def loolu moom yàlla ma lan la c'est ça ma sa jigéen la xaw ma sa lan la c'est ça seen jigéen doogu day na waar yàq sa xel moom ngay jëkk a def noonu ba pare tamit ñaareele féroce nañ féroce goo xam ne daal moom daal bàyyi la ñu toog seen côté boobu rek. Ah, mais nag est ce que tamit. Euh, loolu nag bu amee loolu nag bu amee may la nag moom ñu ñëw gasal la ay pax. wóorul de te parce que ñoom dañuy ñëw ak ak ak xeluk nga baal ma ko nga dañu ñëw a dem ma su ma mantu mi ngi ci mantu tey da ngaa xëy rek sa <laughs> yow sax yoroo ay boo ko mayee sa jëkkër war koo may kay jaga dugal ci tam bi te nga bàyyi ñun bougé wuñu demoon ñu rek. ñu toog ko ñu dese. man daal li ma lay mën a xamal rek moom mooy euh, jànk yi sonn nañu ci biir kër yi. jànk yi am na ñoo xam ne li ñuy dund bu ñu ko waxee adduna bu adduna bu adduna bu. damay wax ni ñoo ngi ci 8 mars. 8 mars gii euh, jigéen ñee ayee. Mhm. xam naa ni war nañoo bu tem bi tey suba war nañoo dugg nag ci 8 mars bi ci mhm, jigéen ñi mhm, euh, waxtaan. mooy daal damay wax ni rafetal lu am solo la mhm. surtout nit nag wóolu la mhm. nga koy liggéeyal mhm. mu am yeneen njaatige ci biir parce que kii xëy am ñaari kër am ñetti kër mooy am na yeneen njaatige waaye ci biir njaatige yi yow yow la ci wóolu lu mu tontin bu mu teggi ñëw jox la xaalis boo mu am yow dénk la ah asgor nag moom mooy delloo ko ngor ga waaye problème moom mooy dafa am lu am sew euh, ajandaag loo xam ne dafa nekk ci doomi aadama gis nga naandite mooy nga jaaxle deseeg sa sago nga am problème trouver ji solution yi. mais dafa am ñoo xam ni bu ñu lekkee xaalisu doomu aadama. wala ñu tiit rek dañuy jaaxle. maanaam xel gi day gàtt. xam nga xel mu gàtt mooy lekk naa xaalisam de nan laay mujjee fan laa koy fayee. ak ni ma wóoloo woon naa ko jiñ sàcc rek. yàlla boo waxee borom xel mu saay-saay li mu lay njëkk mooy jiñ ko sàcc rek day tiit ba du yegg police. te parfois da ngay histoire bi fii lay yem. far mu dépassé la far mu lay yem. mu jógee ci chef de quartier bi dem ci police bi mënatoo koo mënatoo koo maîtriser mu dem nag tribunal nag mënatoo caa def lenn lay lay rek te ku layu ñu jox ñu ki dëgg Mantoulaye dëgg la mu ngoog njaga foofu la daal di tëjee di ñëpp ñi xam ne ñu ngi doon suivre dañuy euh, pour